قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام قالتا أتينا طائعين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 mën naa xamil mooy li nekk ci suñ suuf ci ay lajaraam alkasifati wal latifati min aturaab wal maa wal suuf si mu ko bind muy aslan mustaakan bind ko ay melo fatanawaat ila anwaari yow mu nag ci luñ min toqiyaa ravage yooyu montagne yooyu nekk ci kaw suuf si mbir moomoo nekk ci kaw suuf si wa baaraka mu barkeel fiihaa ci suuf si bëril na yiwam lool gàncax yi bëri nañ dund lii dund ci kawam bëri na te bokk na ci nit wa xadara mu nattale it fiihaa ci suuf si aqwaataha ay dundam def dund li ñooy dundee mu bind mu biral nam toll xam na ñu ne mooy gox bu ne lañ jagoo ci koddaay ak ci lu ñuy lekk ak gàncax ndax su ko defee nit ñi ku nekk soxlaal sa morom te loolu dafay waral dunduk suuf dafay waral nasu xaalam bi yépp fi arbaati ayaamin mu ngi am ci ñeenti fan ci la yàlla bind lépp lu wow sos ci suuf si li mel ni safar yëkkateku ci la yàlla bind asamaan yi xam na ñu ne foofa ne yàqututun xamraa moo fa am yàlla feel ko xool ko bëtu bu mu ruyu mu ju doon ndox duusu dal da yëkkatiku ba mu duusoo nag aw am aw saxat génne ci moom duusu boobu dana wax ni junne xuqub la xuqub bu ne junne xarnu la xarnu bu ne junne xat la xat mu ne junne weer la weer bu ne junne fan la fan bu ne xëppee na ci xëppee na xëdina bi juróom-ñaar fukki junne ak caat yooyu loolu la ndox tëb li doon daje ci diggu ndox mi nag moom la yàlla xar la ci génnee di sax ci la bindaa asamaan yi juróom-ñaar la des ci kaw ndox mi moom la tàllal muy suuf yi juróom-ñaar fam ndox mi doon tëb nag ci at yooyu summa stawaa topp mu jublu jublu ngay firee boobu ila sawaay jëm ci asamaan waaye itam mbir moom asamaan duxaanum sa saxar la maanaam amrun sulaamiyun la ko jug lëndëm la dañoo wax ne yàlla balaa bind asamaan yi xaras dafa nekkoon ci kaw ci kaw ndox mi yàlla da so sos ci ndox mi aku tal lu mel ni duus defaloo mel ni koo mën mi ne salat foofu la fa la kaaba gi sampee ci màkk inna awla baytin wuddi'a lin-naasi lalladhii bi Bakkata mubarakan ba tax fondation Kaaba gi ni mu génnee ci biir la demee ci Taata Sare fa xaala mu wax laa ñeel suuf asamaan walil ard ak suuf ixtiyaar dikk leen mu ne leen ñëw leen daf leen sant laajut leen Cheikh Mamadou Tidiane Chérif dana ko firi fii nee na sant sant leen la leen daf leen sant iblis ak safara nag yàlla moom santul leen fa la laaj waaw suuf ak asamaan yàlla daf leen sant ni itiya iblis ak safara nag yàlla santul leen daf leen laaj loola tax safara toogte la ti ak fees nga am mu ne ko dolli ñàkk kersa boobu ci safara moo nekk ci iblis aadama nag moom ndox ak suuf mooy cosaanam suuf ci la xayaatu mawjud daal yii ci xaalimu suuf yi ci suuf ci ndox la ñoo wéy xaalimu suuf yi toujours ndox leen a naa wa ja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy gis nga suuf it xelul bind gi ci teraanga ci kawam la ñooy daagu ci la dawal oto yi ci lañoo ñoo gas xeer yi ci la ñoo gas beeñ bi ci la ñoo gas teen yi ci la ñoo gas forage yi yépp mu ne pat mu boole ko dañuy saxalal gàncax ñu di ci def partageel seetaanal aboneel Fann Paradis bi loolu la tax bokku rek iblis bokkul ak safara yàlla lañ safara ak iblis merum yàlla lañ mu ne xaaral mi wax laa ñeel suuf wala ard ak laa ñeel asamaan wala ard wala ard it yaa dikkee maanaam dikkee leen ni ñu leen bind moom waxulee ne jëmm yi ñëw moo tax ñu ne ndax ndigal li tasxir la tawaan mbir mu ngeen ne way coobare wu ci digg ji aw karan wala mbir mu ne way forcé ci digg ji waaye mën na ñàkk xaalataa ñoom ñaar ñu tontu su yàlla ne ko atee naa dikk nañ tayére di way coobare wu soobate nañ dikk mun taj dina tam si la ma li astaasu li ma faqadaahu la mu mujjal xasamaani juróom-ñaar sama sama waat juróom-ñaari asamaan yàlla lañ safara ak yàlla mu ne fa xaala wax laa ñeel suuf wala ard ak laa ñeel asamaan wala ard wala ard it yaa dikk nii maanaam dikkee leen li ngeen bind ngeen moom waxu leen na jëmm yi ñëw moo tax ndax ndigal li tasxiir la tawan mbir mu ngeen nawee coobare wu ci digg gi aw karan wala mbir mu nawee forcé ci digg gi waaye mën na ñàkk xaalataa ñoom ñaar ñi tontu su yàlla ne ko attee naa dikk nañ daayira di way coobare wu soobate nañ dikk mun xaj yi na tam si la dikk ma li astaasum ma faqadaahu la mu mujjal xasamati juróom-ñaar sama sama waat ñu juróom-ñaari وأوام وهي من الله في كل سماء إن تسبس حصى معنون يقول يقول أمر عندك بندنا حسمان بندنا في هيوم بندنا نسو بندنا في هيوم نعم ملاك يان ميلاد يبتع سمان لدي أجل يالا لدو يالا إلينا خمي لدو يالا خمو xam nañu ni waaw fi kulli samayn amraha mooy nekkal di yàlla nekkal xasamaan ci ndigal mooy wóoyu wala wóoyu na sëppas xasamaan ñi ko ndigal wóoyu na leen seeni ay ndigal wasay yanaa ñi rafetal sama asamaan duniyaa si daa ji jigéen ñi bii asamaanu duniyaa diini donte bokkuñ yëkkate ku bokkuñ suufi asamaan ak suuf nag wax ju bëree ci ne laaya bii dafa teg ne ne asamaan suuf la njëkk a bind ci asamaan laaya ba dikk ci sóoratu naasihaat moom tegtale ne asamaan la njëkk bind ci suuf laaya ba ci sóotul bàqara moom tegtale ne suuf la njëkk a bind ci asamaan xaddis itam dikk wane ne asamaan la njëkk bind ci suuf beneen xaddis dikk wane ne suuf la njëkk a bind ci asamaan la dilatu yi nag dal di jaxasoo te masala la moo xam ne xolama yu poussé nañ ko nu ne waaye mënta sotti ndax bii yónnent bi fa ci wax bii yàlla fa ci jëfandiku te kenn mënu leen dindi أنتم أشد خلقا أم يسمى بناها رفع سمكها فسواها وأغتسل ليلها وأخرج ضحاها مسكتات على وجه الماء ñu wax nag ni suuf la yàlla njëkk bind waaye asamaan njëkk a pare man sadik ci rafa samkaa fa sawaaha wa aqasa laylaha wa axraja duhaaha wal arda ba'da zalika ci gannaaw yooyee daa yàlla tàllal na ko ala wajhi maa fekk suuf moom am na cest wattu yàlla wattu na yéen xasamaan ba du daanu ci kaw wattu na ko ci ay gàkk ak i sayaatiin saani loolee ñu tudd wallahi taqdirul xasiis mooy nattale aji not ci ak ci laaj xam ku dul moom ma jiitu asamaan at ñu ko asamaan ak suuf ndax loolu yëpp laay yëkkat yi daal di si ñoo ko fatu fa tabarkàlla loo teg foo xul aaradoo fi ngeen dëddee setantalu leen lii ma wax ci yu màgg yi ci diggante bind yàlla bind suuf ak gim samaan a ak lim def ci seen kaw ak lim def ci seen biir yéen amu leen ci benn xilaat foogul waxal ñeen leen an sa tukkum dana ma leen xuppee saay xatan mbugal mi mu ne nit ñi wuute nañ ci jiitu ko asamaan ak suuf ak mujj ko asamaan ak suuf ndax loolu yëpp laay yëg xët yi daal di si fa tabarkàlla loo teg foo xul fay aarado su ngeen dëddee settantelu leen lii ma wax ci yu màgg yi ci diggante bind yàlla bind suuf ak gim bind asamaan ak lim def ci seen kaw li def ci seen biir yéen amu leen ci benn xilaat foogul waxal ñeen leen am sa tukkum dana ma leen xuppee saay xatan mbugal Mira.